bind na ci juróom-ñaari way yoo xam ni benn bu nekk chahru ramadan moom la jël par xaraf xaraf bu ne mu def ci way ba weer wi di jeex mu jooyee ko chahru ramadan macha allah su amee tuuti temps sax mën naa am ma jël boobu ñu barkeeloo ko ci jooye ko weeru koor bi ma wax ni sama turandoo bi ko sama baay dee way da koo melal ci géej mhm. xalifa di géej duus yaa ngi baaw mhm. doo seen moroom géej ni mu yaatoo te géej duus yooyu suñ ci dee melal nitu yàlla mooy may yi mu am mhm. ni géej ji def lay def maa ngi dégg sax sama baay pap Maodo Sy bu maam Alxaaji Abdul Aziz Dabba di ci tagg magam Seyid Cheikh Ahmed Tijani Sy radiallahu anhu bi mu faatoo muy wax lillahi min bahrin talaatama mawjuhu fi kulli fannin yaftaxu al aqfaala allahu akbar mu ni maa ngi jooy géej gi nga xam ni nii duusu xam-xam day jóg ne maay Cheikh Ahmed Tidiane si nee na beneen duus mbéj ko mu daanu ni ko du mën a di ko tàccu beneen mbéj ni du yow mën gis nga duus boo géeju xam-xam googu mu doon wax muy Cheikh Ahmed Tidiane si radiyallahu la anhu mu ngi juddoo ci géej gu mag gi muy sëñ Babacar si sëñ Mansour si borom daara ji bu gàggee kenn du ko gàgganti ci foofu la jóge sëñ mustafa mi demul dikkul léppam di dox ci géej googu sëñ Abdul Aziz mi taawu woon li mu taawu ci géej googu kon géej googu buñ ko bëggee waxtaane te wane ngay meloom jëfe ngay soloom te géej am na koo xam ni jàpp na ni jën rekk dañ fay nopp la cay la cay amee. Uh-huh. mooy barke bi. waaye am na keneen ku am yitte nag li mu jàngaloon moom sama turadoo jàngal ko woy juram ci teggin te mooy géej wurus nga ca biir te wurus woowu boo xuusee doo ko am Maodo bi muy jëkk a taalif xilaas uh-huh. mu nga jëkkoon a bind yaa xaaid al bahri lil asdaafi indiya asdaafun biha durratun ala min al jalami <laughs> way yonent bi salaa sallam way wu ko kenn mësula way <laughs> pare jox ko sëñ Babacar Si ni ko xool ko te loo ci war a defarit nga defar ko mu xool ko ba pare dal di koy daal di ci def benn synthèse ci yaman ata bi xilaasin faiqin durar yaman ata bi xilaasin faiqin duraran qad jita ma yujibus sudan wal gurara biko biko mo fe radiyallahu ta'ala khilas bobu sax ma sha Allah ñaar am na ci dama indi bisa bisa bi sama def waaye sama ba def na ci bi ko sëñ babacar jàngee ba mu jeex mu def ci benn synthèse def ko xasida waaye mu ni ko góor gi nag dama am jaaxle dafa bari teggin nag moom sama turandoo mhm. parce que nit ki gis nga sooy jàngal sa baay mhm. danga ko koy jàngale ci teggin mhm. waaye dooni sa baay maa la raw ci bay na xaw say ni sax euh, yonent yàlla ibrahim alayhi salaam bi mu gis baayam di jàmmu xërëm te mu xam ni bay bee yett xërëm ji utal ko sikki mu der naka la koy wëlbatikoo di ko jaamu mu ni ko bàyyi daal man dama yaakaar di yàlla day kawe uh-huh. kon tee seet yàlla ju kawe uh-huh. bidiw bi génn mu ni ko bàyyi bii kawe na de te leer na teñ koo jàpp bidiw ba suux mu ni ko bàyyi luy suux du yàlla de. Uh-huh. weer wi mu ne ko bàyyi nañ jàpp bii moo gën a mag weer wi suux mu ni ko ah, bàyyi luy suux du yàlla de. Uh-huh. jant bi génn mu ni ko oo oh, bàyyi waa jànge ne nag daj dëpp gaangee ni ko ay mbay pex di waxee. daj dëpp gaanga ne moo gën a leer jant bi som mu ni ko ah, bàyyi nañu seet ki nekk ci gannaaw lii. Uh-huh. di leen yabal bu seen mission jeexee. ñu dem te kooku mooy fatara samawati wal ard moo bind asamaan ak suuf moo tax sama turandoo bi mu bëggee delloo si Cheikh Al Hadji Malick radiyallahu taala anhu fóore ju mag jooju mu ne ko bàyyi damaa am jaaxle mu ne ko waaw mu ne ko da nga ni yaa xaaid al baxri yow mii xuus géej ba pare ni lil asdaafi wurus ngay wuti te wurus bàyyi xuus du ko mayee de nuur a koy maye mu ni ko doom li ya taxoon ma jox la ko mu ni ko xaaidal baxri ak xaaisal baxri ñoo bokk wësnu soo ma joxee ndigal ma soppi ko mu ni ko doom jox naa la ndigal يا غائس البحر للأسداف عندي أسداف بها درة على من géej googu nag gu nag moom laa wax ni suñ ko bëggee waxtaane te wurus waa nga ca biir yeneen na nga ca biir xajul ci génn guddi waaye sëñ Babacar si radiyallahu la anhu lan la la di nit la ah? ma wax la ni la yàlla bi muy bind bind na lu nekk malaaka yi la jëkk a bind bind leen ci jawhar séddale leen ay xeet ñii di ay muqarrabuuna ñii di ay ruuxaaniyuun mu bind jinne yi bind leen ci safara am ci ci jinne yi ñu am capacité di liggéey comme malaaka am ci kuñ tudde woon azazil bi ko yàlla dégradé la tudd iblis nekkoon na sayidul kurubiyin ñee duñu lekk duñu naan di jaamu yàlla na neex yàlla waaye jinne yi ñoom dañoo séddalikoo ñii gëm nañu ñii gëmuñu waaye ñi gëm topp nañ yàlla ñi gëmul féttéerlu nañu waaye ñoom ñëpp amoon nañu capacité di dem di déglu ji li yàlla di jox malaaka yi comme ay directive soo demee ci alquran inna kunna naqudu minha maqaida li di déglu yàlla xëy ni day bindaat ku ko wuutu ci kaw suuf te ban la koy binde muy nit te moom la mujjee bind nit kooku nag bi ko yàlla dee bind la mu soxla ci moom nit mooy na déggoog moom moo tax soo demee sëñ Cheikh Tidiane bi muy tagg turandoom bii sëñ Baba si radiyallaahu anhum ci siyamun tuxu jawharal insaani siyamun mooy jikko yoo xam ni caq lay doon di ay per yoo xam ni benn rekk boo ko ci amee ñu naw la nga boole caq boobu ba pare wutal ko diggal loolu chiam tuhaqiqu jawharal insaani gis nga sëñ Babacar sama turandoo fi mu ganee àddina ba bis bi muy dugg bàmmeel le 25 mars 1957 yàlla mosu koo mere macha allah uh-huh. ñuy tontu euh, laaj boobu uh-huh. ma sant ci turu sama rakk yi ma àndal uh-huh. ak Abdoul Aziz mi nga xam ni maa ko yar maa ko jàngal. Mhm. ñu sant ñi fi yónnee ay teraanga yépp wante nag ma profité ci am lu ma jàngale. Mhm. dama dégg Abdou Aziz mbay sunu baay bii nekk ci kanamu tariqa bi di Pape Serigne Mbaye Seydi Aboubacar mam Muhammad Mansour santuko ko mu way khilas ñu way khilas bi ba mu jeex bima ko deglo fek papa simi di sunu chat, am tour mani Abdou Aziz dina ci ñew ak Ahmadou mani sama yalwan ji nga xamni ni lew na ndax sama

mani sama pension boobu dinaa ko séddale Abdou Aziz ak Ahmadou bi ndax lan senegal lii ngeen doon def nii ñuy wax ci ku toll ni sëñ Babacar Sy radiyallahu taala anhu mhm. te kat billahi lazi laa huwa wutuma ci nit ñi dara waaye képp ku jël sa alal mhm. fekk koy

ma ni nag est-ce que nii bu ñu ko continuer ci Sénégal ñiy woote seen cofeel ci yonent bi salaahu sallam est-ce que su ëllëgee du ñu am gàcce ci kanam yonent bi salaahu sallam dëgg la kon ñiy wax ci diine mhm. di wax ci yonent bi salaahu sallam di wax ci nit ñu baax ñi suñuy baatare ñooñu la ñu war a baatireel dëgg la moo tax ñi fi yónnee teraanga yépp ñu di leen sant. ci soxna euh, nu mu tuddati. sama ah, Samake soxna ami Samake mu mujj ki jëkk a joxe. soxna Xadi Wadd soxna Xadi Wadd. ak ñaa xariñ loo mële suñu xarit bële. sëñ Baba gis naa ko mu di ko mu di ko baatere. Uh-huh. wallaay moom noonu lay kii nga xam nag ni. Uh-huh. sama soxna su bopp la ma. waaw waaw. <laughs> ndax Mbaye Diop Satar moomu ñuy wax. maak moom. benn benn lañu ay xarit lañu sëñ Cheikh Tidiane si moonu takke radiallahu taala anhu kon su fi soxnaam hmm. moom def na li ko war yal na ko yàlla fay sunu doomu sëriñ bi bi ci teg lim ci tegit ñu ngi leen di sant waaye dama naroon bàyyi ba ñuy tëj ma soog a dugal yenn yi waaye comme dugg naa ci foofu ngeen may ma rek gis nga plateau bi. ñaar fukki junni. na ci ñaar fukki ci ñaar fukki junni incha allah ci barke sëñ Babacar. gis nga plateau bi. man ñi ma xam. miinu ñu ma ci yi. miinu ñu ma ci yi. man damaa tànn nag. maa ngi ciy sant yàlla nag ak sama barki turandoo ak sama paspasu baay nag li ma tànn mooy jàngale moo tax am na benn chaîne bu may jàngale tudde ko badaa'iul maktuumi maa ngi ciy firi xasida yi sëñ Babacar si def ak xasida yi sëñ Cheikh Tidiane si def chaîne YouTube la wala chaîne YouTube la badaa'iul maktuum laa ko tudde maa ngi ciy mm-hmm. jàngale yooyu waaye plateau bi gannaaw yàlla li tax ma nangu ko nangu cee ñëw Ahmadou mi wax na ba tey Cheikh Tidiane mi daa mujj ni ma sama bulletin de naissance bi lay xotti boo ko lànkee ndeysaan sama doomi sëriñ yi mm. ku nekk di woote soxna kantom si woo ma moom itam di wax soxna fat si mm-hmm. bu bu caatu sëñ Abdou bajjan lalla Eh, soxna umu xayri doomu Serigne Moustapha. pexe amul ah kenn ku nekk di woote. ni ma bi ñu déggee nii yaa koy def nangam nangam. amul bismillah waaye gannaaw yàlla. leen rek a tax ma nangu ko. nun ay gor lañu. walaay ndeysaan. sama baay. tarbiya la daan defal sëñ Babacar si te mosu cee dara. Mhm. kër gu parewul sax la fi bàyyi. te kër googu sax maa ci reyanteeg moom ci mu ci mu ci mu góorgóorlu ci waaye alaaji ale njaay lay waxtaanal bis maak moom ak mun njaay mu ni ma sa papa ndax dinañ ko jox nagu gàmm ma ni ko mësu koo laaj kenn mësu ko koo jox sëriñam yi nag yéene nañ ko waaye du ko laaj de mu ni ma maa ngi jox nagu gàmmu gàmm alaaji Mansour Mbaye ren ji dinaa jox sa papa nag alaaji aale at moomu mu ko commencé mat na fanweeri at bàyyiwu ko ba ni sama baay sàngoo suuf ak baax alaaji alaaji aale njaay abdul aziz mi man ñii laa am sama baay moo ma dénk njabootam yi laata muy dem fukki at ak juróom mu dem ci sama turandoo ni ma sa turandoo laa jógee quatre heures du matin laa fa dem wax naa ko ni ko na ma fi jëlee waaye nee naa ko ki ma la tudde am na xolu yor sama njaboot na ko jàppale loolu moo tax ñii laa am kon ku leen di teral teral nga ma moo tax bi leen Abdou Aziz dee teral teraanga yi leen di defal te plateau bi mu def ci lim ci def ak yéene ma ni leen ah su ma ko gantoon ak duma doon kor kon maa ngi koy sant moom itam ci loolu di sant ñëpp ma mhm. tontu nag tontu question bi nga laaj ci sëñ Babacar Sy radiyallahu anhu ak Taysiir mhm. xam nga papa si daf ko way rek ni ku nekk ak loo mbaaseel yonent bi sallallahu alayhi bi ñu koy tagg ñu ni at mi mu ganee àddina ca la ñay wa doon mabbe mhm. si kaaba amul fil muy amul fiili ñu ni am na benn biddiw bu ñuy wax al mushtari almustari mhm. ñu ni bi yonent bi salaa sallam ganee àddina la biddiw boobu fekk mhm. tuluuhu wa tuluuhul mushriq tarana mhm. waaye kon nag taysiir bi maase ak sëñ Babacar Si radiallahu taala anhu nga wax ci itam li nga ci wax taysiir lan la ah taysiir boobu taysiir lan la Cheikh Al Hadj Malick radiyallahu taala anhu dafa fekk comme li ma doon wax ci chiyamun tuxaqiqu jawharal insaani benn per boo xam ni soo ko amee muy perle précieuse ñu ni aman na mënal na la lu ne soo ci amee benn rek doy na Maodo ni perle yooyu dinaa ko nas ab càq ba pare wutal ko diggal mu ni waaye nag bu ma ci yàlla dimbaliwul woon duma ko man moo tax mu jël taysiir ma wax la ni la mbooleem ñaan gu ñuy ñaan ci àdduna mboolem salaatu bu ñu def ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. mbooleem lu nit di muslu wala looy soxla lépp maw doon ko def ci taysiir mm-hmm. waaye lu tax moom maase ak sëñ Babacar si. dafa am anhu. Pape Khalifa dafa am ñu wax taysir am ñu wax wasilatul muna. waaw ismu bi xaqiqan. waaw wasilatul muna moom la ko Maodo tudde mooy tur wi. wasilatul muna mooy tur wi. wasilatu lan la firi mooy got. ab got booy wasilatu. kon ndox mi nga bëgg ci teen bi. sa loxo jotewu ca goj bee uh-huh. waaye boo amee goj mm-hmm. boo jukkee rek naan am ndox mu ni li nga bëgg nag ci sa digganteeg yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndoxum leer moomu nee na goj bi mooy lii moom la moom la tudd waaye nag comme bu ñu koy woy day tàmbalee alhamdulillahi uh-huh. zi taysiiri yallaahu mhm. nazma daraari lahu yallaahu yallaahu mhm. nit ñi ni taysiir waaye tur wi mooy wasilatul munaa mu maase ak sëñ Babacar si radiyallaahu taala am na sax ci nettali ndax histoire itam sooy wax dangay wax rek lu wóor ci li am na ñu wax ni bi Maodo egsee ci rabbun tabaaraka mhm. aw rabbun taqaddasa aw rabbun taala uluwan rabbi yàlla foofu lañ ko annoncé ni ko ni ko soxna Roqee am na doom bu góor allahu akbar mu ni kon nag Taysiir bi indaale na gan Babacar a ngi noonu akbar mais mais mais mais mais mais mais euh, euh, ilmu tawxid bi bi ñëw ci gab ginnaaw rabbun tabarak waaw سياسة الحاج مالي فو باي نمو ديبيتيون وبي بانين باج واو شي قلنا رب تباكم يا عبد زليل فقير خاشع وجل ذو جزع اسف اليك مد يد رجال مغفرة هبل مسامحة بوكو ام ام اي تك اي اي اي بوزيسيون يبري تي بين تيري بو نداو بوبو نون واو جيسنغا كومان سيوف داي ديغو اوكي جيسنغا سو لاجي سما مبوك مي دي الاجي ابراهيم باي بيخ su bëggee jot nit dara bëgg mu may ko may gu rëy da koy yëkkati ba ca kaw waaw suuf soo ko yëkkatee ba ca kaw mm-hmm. ah, mu xool la su dee nit ku tedd rekk su lay may dalay may ni mu toll mm-hmm. moo tax Maodo bi muy tudd yàlla ah mu ni rabbun mm-hmm. buur a ngi nii boo xam ni tabaaraka moo barkeel te lu mu dugg mu barkeel rabbun buur a ngi nii boo xam ni taqaddasa moo sell te lu mu dugg mu sell aw rabbun wala buur a ngi nii boo xam ni taala moo kawe te lu mu dugg mu kaweel lu tax aw yi aw yi wala aw aw boobu firiwul sax de du walla de uh-huh. aw jooju wala wa rabbun واو او او ديفيري حتى ما شاء الله او ديفيري و ما شاء الله يلا يلا فيلا واو او حوى التفضيلة بوبا جفئة التفضيلة تسود يلا يلا فيلا ليجي كم يلا نك موم موم تبارك موم موم تقدس موم تعالى علو ربي يلا ناري شيز رك في نك شيز بي شيز يالا لا توك Mhm. yàlla keneen du ci toog yàlla présenté moom itam moo moom itam mu présenté. mu ngoog keneen dootu ci toog. kon lan moo des beneen chaise bi chaise u jaam la. abdul waaw te jaam boobu kat moom su kawee ci kanam yàlla. Mhm. mu daaneel ko. Mhm. dëgg la. al insaan sayyidun wa azimun wa rafiun wa wadiun sayyidun tasdaadu siyaadatuhu bil ubudiya بانقياد النفس أو بانقياد في النفس وقابلية في التبعة وتودع والرفيع تزداد رفعته بالوداع بسهولة في الخلق وخفة في الطب أيدك الله ونصرك يا أبي جزاك الله دم آدم سنغلا ci واي جام jam la ci gwet yëkëtiku na ci gwet way wacc na ci gwet cang gi bala moo nga gis ku toll ni sunu maam jee ca Touba ah, ak ni mu toll ak ni ko nit ñi yaakaar rek xam-xam baag leer gaak yëpp. ñu ni ko loo bëgg ñu di la ko woy mu ni xaadimu rasul xaadi dëgg la man daal buñ may wooyee nañ ma wooyee ki nga xam ni nii mooy mbindaanu mooy booyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax wàcce boppam rek moo tax boo wàccee yàlla yëkkati la boo yëkkati ko yàlla wàcce la moo tax Cheikh El Hadji Malick ni yàlla moom tabaraka taqaddasa taala uluwan ah waaye ki ki ki keneen ki nag kan la jaam la kon kii la kan la mooy abdun abdun zalilun abdun jaam la waaye zalilun bu toroxlu la xaashiun ku ragal la zu jazain da koo booleeg tiit asifun boole koo metti malheureux ah te yow rek yaa fi nekk yallah yallah waaye kooku nag lan la def ilayka maddal yada rajaa magfirati ay yàlla waaw ay yàlla mu ngi la tàllal ay loxo lu mu yaakaar nga jéggal ko waaye hëb li musaamahatan ah jéggal ma boo ma jéggalul naka laay def parce que fii ma nekk situation bi ma ne man xam naa sama bopp te ma wajal baxru baxru zambi yaa siqati géej gi duusu na baxru zambi géeju bàkkaar yi yaa siqat yi te ci yow rek laa mën a ŋoy wallahi ah ba duma lab te fa fa inna nii rabbi xiftul xarqa allah ragal naa ni nii dinaa ci dinaa ci lab te su dee gaal sax gaal googu rek doyuma parce que gaal googu su àndul ak sa yërmande. gaal gi toj te su tojee itam mu diig ci biir te wama safinatu turja gayra rahmatika udman alimati kulla xalqiya kon ashku ila llahi xaaja laysa yarfuha siwaka ya rabbana ya allah ya allah المولى رب تبارك أو رب تقدس aw rabbun taala uluwan rabbi nga wax ni nii taysiir boobu ni ko Moustarchidine yi bëggee di ko jàng gis nga nit man dama am dama am benn benn ci sama turandoo képp kuy yëngu ci sama xadara turandoo bi rek loo cay def mu jur résultat rek naw naa ko dëgg la nag daayira yi bu ci nekk ak ba nga bokk waaye su fekkee ni nii dañuy wax ci Taysiir Maodo mu ngi ko taalif mu maase ak sëñ Babacar Si waaye mag ñi daan nañ ko jàng waaye siiw gi mu siiw nag ba xale bu am juróom-ñaari at mokkal ko loolu liggéeyu sëriñ Moustapha si la doomu Seyid Cheikh Ahmad Tidiane Sy di sëtu sëñ Babacar Sy bi mu nekkee tout tànk moom sëñ Moustapha moomu bi mu nekkee tout tànk la ko maamam daan tëgal naan ko xasiir kañ nga may demal tool xasiir kon kañ nga may demal tool bis biñ ko ko nettalee dafa jooy ni dinaa ko demal tool kon nag taysiir boobu la Moustarchidine jël def ko muy seen muy seen muy seen hymne taysiir nag taysiir nag kenn du ko jàng ba pare di ñaan dara looy ñaan rek dugg na ci biir taysiir soo ko jàngee ba pare billahi allazi la ilaha tey siir mën naa jeexal guerre. wër dinaa ci joxe exemple. sama baay jamono bi ku koy Samba Sanyang ñëwee Gàmbi te fekk fa maam Habib radiallahu taala anhu te affaire bi egg foo xam ni nii booba maara day taali sama baay dama woo ma xalifa jële naa ci sa turandoo mu ni fukki taysiir ak benn guerre buñ ko jàng mu jeex kon yaa ma seede maa ngi tàmbali taysiir bi lii ci gàm bi bu taysiir bi jeexee yal na guerre ba jeex maa ngi toog mu jàng ko ci sama kanam fi mu tëje fukkeel beeg benn mhm. di ko jox sama turandoo Fofu la ñu annoncé ni ku koy Samba sañang dem dem na motax fofu sax bari wul won lu mo don joy mom sama jur waye keroog joy na mhm. motax tay sir lepp ngi ci bir salawat yep yep ngi ci bir motax Abdou Kan mhm. seigne Cheikh Tidiane radhiyallahu taala anhu nena, wolu nama na ma jang tay sir teud ci ray bi dehar xaar saxaar gi mu ñew te du ma waaye nag al fawaidu min al aqaidi comme nag sànq dama leen a waxoon ni dafa am benn jàngale bu ma bëggoon a indi ci sama turandoo fi mu nekkee liir ba bi muy am fukki at bi muy am ñaar fukki at gane gi mu ganee àddina ndar ndar googa géej ga fa nekk ak dex ga lan la joué ci walam ak ban symbole la. lolou bëggoon na leen ko indil su fekke ni ni am nañ. am nañ ta dafa jàngale seigne Babacar si ci ben résumé muni ni alimma ala khairil jazirati innaha ra'at qablu al yawmi fi mahdihi tifla nee yow mi organiser plateau tudde ko seigne Babacar si ci deux es te njaboot yi ci ci Sen TV maa maa dama juum maa ngi jégalu benn ñu ngi ñaan mbokk yi ñuy seetaan fépp xam nañ seen yéen ak seen pas-pas wante itam li tax ngeen di kontaan bu ngeen ci continuer ci téléphone yi itam da ngeen di yàq émission bi kon dootul am solo ñu ngi leen di ñaan ngeen bàyyi communication yi ba ñu continuer ci waxtaan ba am solo bi après bu ñu génnee ku nekk la nga nax boo wootee ba Ablaye euh, ñu jot ko bu ko defee tubaarkàlla mu dem si ñu mag a dem ndax waxtaan bi nga nekk dafa am solo papa parce que parce que darsi bi nag nit ñi am ci sëñ Babacar résumé waay baax na top mu ni alimma ala xayri aljazirati innaha raat qablu xutbal yowmi fi mahdi tifla mu ni yow bugaan yow mi organise ci Sen TV plateau macha allah pour ñu waxtaane sëñ Babacar si radiallahu boo bëggee xam kan mooy sëñ Babacar alimma wàccal ma ala xayril jazirati ci il bi gën ci il yi mooy ndar ndax innaha il boobu ra'at xablu moo gisoon ca bu jëkk xutbal yow mi kii nekk xutbu tey fii mahdihi mu gis ko ca bersom ba tiflan muy liir mu ni ra'at fii abi bakrin mu gis ci sëñ kër sabiyan nee na muy ndaw ba pare mu mën an lépp lu ndaw di def mu tere ko boppam mësula jaar ci ndaw fa lama xawaa atif lahu la il bi gis liir ci berceau bi shiblan muy gaynde bu ndaw wa in fukki at fa huwa moo am ñaar fukki at rek nekk waliyu mhm. kon nga yéemu ci sëñ parce que wilaaya ci ñeen fukki at lay ñëw nubuwa ci ñeen fukki at lay ñëw waaye kii moom bi mu amee vingt ñaar fukki at muy genn wàllu ñeen fukk nekk na waliyu lu tax laata muy juddu lii genn wàll gi ci moom moo nekk matière mais geneen wàll gi ci des leer la parce que ku ko jur شيخ الحاج مالك موكو جور رضي الله تعالى عنه كم كو جورل جيجين جو سيل جوني واخ سخنا رقاي سخنا رقاي نجاي موتخ فان ادرك العشرين فهو وليها سرائرها تبني له القول والفعل موتخ غور غوغ nga xamni ñaar fukki at la am di waliyu lumu wax mu tabaxu lumu def mu tabaxu motax plateau bi sax ñu defé fi ma len ko wax fi insha allah television bi dina fitt ñëpp di ko dégg ku mu neex ak ku mu ak ku mu naqari parce que sëñ Babacar Si lu mu laal mu barkeel lu mu dugg dugal ca dugal ca secret jërëjëf Mbaye jërëjëf mu ni jasiratu xaalaatin xisaanin fa innama lahunna sadan min saalihatin biha tutla nee na soo bëggee gis dëkk boo xam ni jigéen ña dañuy yor daara di jàngale alquran nee na demal demal demal ndar nee na soo dégloo nee na dinañ la limal jigéen ñu sell ñooñu karaimu an jabnal kirama fa kullu man atahunna laaqa fi zarahunna ma adla nee jigéen ñu tedd ñoo jur ji ñoo jur ay góor ñu tedd fa minhum qudaatun ñu ñu jur am na ca ñoo xam ni ay attekat lañu uh-huh. waa dama koy baral uh-huh. temps bi laay bañ fa minhum qudaatun nee na am na ñoo xam ni ay attekat lañu. fil madaini qaadatu nee na dëkk boo dem fekk leen fa ñuy gidd te mat ko. waaye isa nataqu bil bil xukmi adnaw bi bihil adla nee na fu ñu addoo ci atte nee na atte bëriche. lahu fi irtidaai ummahaati maalimun wa ay irtidaai min razanatihi aala nee na ma lay xamal ni kii ma lay wax muy sëñ Babacar si nee na ku sa ndey gërëmul. doo baax ku sa ndey gërëmul doo dem aljanna mu ni sëñ Babacar si nag ndeyam da koo gërëm mu ni waaye nag gërëm googu ko gërëm ku mu bokkal da koo gërëm waaye nee na ngërëm la yëpp dignité sëñ Babacar a ko kaw mu ni fa ma malikun adra fii laa bëggoon a ñëw minim ni ruqayatin bi maa huwa fii diinin wa fi sunnatin awla wala shafii adna ila alfahmi min fatan tasawuruhu bil aqli qad jaawazal aqla mu ni fa maa maalikun xaw ma menn maalik adra mu raw mi nim ni roqayatin ci doomi soxna roqaya jaay ji waaw xalifa fa maa maalikun la wax de xaw ma menn maalik mu raw doomi soxna roqaya jaay ji te ñun xam nañu menn maalik maalik bi jiitu mooy maalikum nu anas téere yi ñu tabax ci yi ñu yi ñu bind ci l'islam bi yëpp maalikum nu anas a ko bind waaw parce que lu leen jur mu waxta moo leen jur te nee na fa ma malikul adra nim ni roqayatin xaw ma malik mu raw doomi soxna roqaya njaay te malikum nu ana sa fi malik foo wàdd mii ñu xam mu jur ko moom itam nee na téere yi ñu bind ci sharia yépp suñ ko lakkoon ba mu nekk doom man malik dinaa ko bindaat te duma ci bàyyi génn liif kon malikum nu anas me mo jëkk bind malik fawad mi neena la commencé ci malikum nu anas ba ki mujjé bind ci l'islam neena lu lu lu fi bindon suñ ko lakkee dina ko bindat te duma ci bàyyi génn liif te neena xawma malik mu raw domi soxna roqay njaay ji muni wala shafii adna ila al fahmi min fatan tasawwuruhu bil aql qad jawaza al aqla muni shafii neena gënu la jege ak dégg nee na góor gi nga xam ni bu la jàngalee ci xel rek nga xam ni nii xelam dépassé na lépp lu tax mu dendale Malik ak Shafii Shafii bi muy jàng si ci Malik mu watta ñëw Madina yoor yoor la fa ñëw Malik di jàngale ba lu mu wax rek Shafii jël baaraam bi teg ci làmmiñ wi di bind ci tënk bi Malik di ko xool rek mhm. ba ñu noddu tisbaar mu ni ko yow màkk nga jóge mu ne ko waaw mu ne ko ci Quraysh nga bokk mu ne ko waaw mu ne ko maa ngi la xool sopp la may jàngale ngay focc sa tiflit mu ne ko li nga doon jàngale laa doon bind mu ne ko woy may wax ngay wax li ma li ma doon jàngale waa taril ma ci benn xadiis mu commencé an Nafia an Abdullah ibn Omar an saaxibi hadihi rawda ba fi ko Malik cëppee ci bi ñu noddee tisbaar Malick jël ko taf ko ci moom ni ko xale bu mel nii laa doon wut jàngal ko mu watta mu ni la nag wahaa huwa ah min bayni bahrin wahaa huwa za min bayni bahrin wa nahrihi hakiman yara fi nahri fi bahri wa nahri ma jàlla mu ni la nag comme dama laa waxoon ni la sëñ Babacar ndar la ju la juddoo ndar lu fa nekk amul amul géej. amul dex. géej géej dex gi fu ñuy laalante. du foofu. marajal bahrayni yaltaqiyan baynahuma barzakhun la yabghiyan mu ni huwa za mu ni sëñ Babacar ngi min bayni bahrin ci diggante géeju ndar gi wa nahrihi ak dex gi xam nga lum ci jublu min bayni bahrin ci géeju sharia gi wa nahrihi ak dexu xaqiqa gi xakiman mu doon ci ko xereñ يرى في في في يرى في البحر والنهر ما قد جلا لو فين بحر الشريعه سيد بابكر سي خمنكو لو فين تي نهر الحقيقه خمنكو يرى فيهما ما عند الفريده انها تكفر ذنبا للمريد بما اختل موني لاموي غيس نك موي فين تي ديغنتي غيغي اك دخغي نينا دافا دافا دون wurus woo xam ne nii benn la loolu ahmadu moom la sa baay doon way naan xalifaay sàngal kam bu la neexee am ca sang dawal fuuk ci naan ci naan sam ay soppeem am nañ cey ndaawal fóot ci mbay sangu mbay min tiib max naawo mooy docteur bi waaw wallaay bari fay tànk aayu fa à. loxo ca kaw xalifa di bëjant loo bañ bañ mu tiim la leeralal lii la yàlla may mbay min tiib max naa mooy docteur bi waaw wallaay bari fay tànk ay bay minti bi ma xanaa def leen ni kuy bañ ni doo jiital xalifa mbay si kon bu sareet jiitoo fas daanu xaj naa ca bay minti bi ma xanaa mu ni la isa kasurat tilkal miyaaw fa yaalaha tunadifu jisman aw tusafi bihi zayla nee na sëñ ba ko sob nee na ak nu mu mën a mel nee na bu ñu ko sóobee ci ndoxum sëñ Babacar Si radiyallaahu taala anhu nee na lu mu tilim tilim nee na dina set moo tax nga dégg silmaxa yi daan way naan Seex Tijaan sa bàyyi ku ko gëm loo tilim tilim di nga set mhm. fa kum rufiat anhu najasatu indama yusabu alayha nee na sëñ Babacar si nee na radiyallahu nee na mooy géej wala dex goo xam ni nee na ki mënta dem ca géej ga ak dex mhm. na na yóbbante ñu wutal ko ca ab siwo mhm. wala ab baag nee na siwo boobu ak baag boobu nee na bu ñëwee ci yow sa yaram li ci nekk ci tilim yépp dina ko setal say mbubb lu ci nekk ci tilim yépp dina ko dina dina ko seetal mu ni fa haza abou bakrin mu ni kii la doon wax nag mooy sëñ babacar ajibhu nee na nanga ko wuyu isa daa bu wootee ajibhu nanga ko wuyu isa daa ci plateau bi ajibhu nanga ko wuyu isa ca kay joxe ay teraanga ajibhu nanga ko wuyu isa daa ca kay ci technicien yeeg ñiy jàppale ñëpp tey sa turandoo waxa fit janaaxa dulli mhm. tëjëhal bii dulla nee na ku toog ci kanam sëñ Babacar wàcce say mbagg mhm. nee na dootoo torox addina doo torox alaaxira wa haza bnu Usmaan rida zurhu bi rida yaqul laka ixwaanu safa marhaban wa sahla nee na nee na doomi Usmaan jaa ngi noonu sët nag la ci jublu nee na demal nga ziyaare ji ko nee na soo demee ziar ko nee na ñi ñuy wax les frères de la pureté nee na ñoo lay dogale ni la marhaban yaatal nañ la wa sahla lahu fi lahu siqatun fi nafsihi baada kawnihi mahata nufusin ma a'azza wa aghla nee na sëñ Babacar na ku wóolu won bopam la ndax wóor na ko ni nii bakkan yi jëm si ci mom yépp muy bakkan bu tedd ku ñëw dina la garantir ndax dina la jaarale yoon lahu siqatun fi lmajdi walmajdu ilfuhu kaza siqatun fi nasri wal xissati alfudla nee na li nekkoon ci moom ci tedd nga moom def koo gëmal boppam tedd nga boppam nee na gëmoon na yi ni yàlla dimbali na ko bayit bii nag moom laa leen di baaxe bayit bii tëj way wi falaa xayabal mawla al ali rajaana wa kullu rajain fiihi yastawjibul bazla mhm. falaa xayyabal mawlal ali yàlla mi aji kawe yàlla bu mu tas sunu yaakaar wa kullu rajain fiihi nee na bépp yaakaar boo yaakaare yàlla te jaare ko ci sëñ Babacar yastawjibul bazla nee na yàlla nee na dina dina warlu su dee chèque maa la koy jox kon nag ñu ngi ñaan ci barke sëñ Babacar si radiyallahu taala anhu fala xayyabal mawla ali raja lépp lu nu yaakaar yàlla bu ko yàlla tas wa kullu raja fihi yastawjibul bazla yal nañ ko yàlla defal ci barke sëñ Babacar si radiyallahu taala anhu ngeen baal ma nag ko barale waye dama xol heure bi moy 4h23 te beggon na yëf yi ñu yeggalee ko non sëñ Babacar si nak radiyallahu taala anhu warista dangaa don Maodo moo koy wax wali zaaka dani loolu moo tax qaala lahul imaamu Maodo moo wax sëñ Babacar ni ko dénk nañu la sirra qiyaadatin sa kërëb wommat jaam mahmulan loolu yaa ko yenu waxu ko dénk naa la de dénk nañu la waaye wari sa min nii nag maa musajjalan li riwaayatin lépp loo xam ni nii moom wax ni li ñu bind ci kutubu shariati kulliha lu ci ñuul jàng naa ko man Maodo loolu donn nga ko ci man sëñ Babacar Si macha allah li riwaayatin wa diraayatin am na beneen xam-xam boo xam nag ni nii nekkul ci téere yi hmm. mooy xam-xamu diraaya moo tax Amadou sa baay jàmbaar la nee na ko am nga xam-xam am wilaaya ah, am am diraaya ami may li ko buur laaw defal am konikaar moo ma taway am xam am wilaaya am diira ami may am na xam-xam am wilaaya am diira ami may li ko buur laaw defal hmm. an ko nikaar moomata mooy tukkulóor ak wala fëgg naar ku ci musalam butu mbay góor gi booleeg la nga xam jaggi la tey moomata mooy doon sëñ Babacar laa leen di laaj ban année la génn àddina 1957 jëlal ma ko par ñaari chiffre ñaari chiffre yu jëkk yi lan la 19 la di xam ngeen ni 19 mooy bisimilahi rahmaani rahim ah? te xam ngeen ni nii bisimilahi rahmaani rahim baaw bisimilahi rahmaani rahim mooy secret fatiha waaw loolu d'accord nañ ci waaw léegi yeneen ñaari chiffres yi lan la 57 ah ni 57 la. waaw ñun ñëpp d'accord nañ ci. waaw multiplier leen 57 par 2. 114. 114 la lay jox. waaw. zamaana kunna. zamaana. yusmiuna alquranu sawta fatan zamaana yusmiuna sawtu fatan mm-hmm. ci yéen ñi jàng zamaana am na jamono yusmiuna alquranu alquran moonu daan dégtal sawta fatan baatu góor ga bu alquran waxee rek sëñ Babacar la lay jox zamaana am na jamono yusmiuna alqurana sawtu fatan am na jamono boo xam ni bu gër ga jàngee alqur bu bu àddoo rekk nga dégg alquran ma wax leen ni sëñ Babacar Si radiyallaahu li mu daan wax ci wolof alquran la ah. moo tax li may tëje mooy ñaan boobu mu def ci salatu bobu sama turundo mo def ben salatu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam allahumma salli wa sallim dina dina la jox nga nga tëj salli wa sallim ala rasulika al amin al mubin bi diafi kulli suratin min suwari al quran alf alf wa bi diafi kulli ayatin min ayatihi alf alf وبضعف كل كلمة من كلماته ألف ألف وبضعف كل حرف من حروفه ألف ألف خمسة صلاة بابو نمو كي فيري نيت نيا دانيو تاسا كين كو نيك ني نا واخ ليم بيغ تي خالص الله جيم ابلاي مباي بيخ ني من دي استوديو بي ni mu toll ku ma ko duyaloon ak ay billet yu euro wala ay dollar ba mu fees rek kontaan naa. wax leneen keneen wax leneen. man de saxaar mu demali. saxaar mu demali. Ah. mooy mooy express. Ah. Mhm. mu ni mu sëf crayon. ñu ni ah xanaa kon da koy jaay mu ni ba mu jugu jaga mu bañ mooy saxaar gi dem na ba mënatu la mënatu dox mu ni nga fab benn crayon. nga bind kaalis kaalis kaalis kaalis kaalis kaalis crayon mu jeex takk takk takk nga fab nga bind ba saxaar mu jeex saxaar bu express bu sëf ay crayon mhm. ngay jël benn crayon di ko bind xaalis ba mu jeex ba crayon bi jeex ba mu jeex <laughs> salaatu bii sama turandoo def mhm. moo ëpp crayon boobu dani mu ngi julli ci yonent bi mhm. julli goo xam ni day jël yàlla da ngay jël leeru yonent bi salaa sallam mm-hmm. jël alquran benn saar bu nekk nga multiplier ko mille fois mille mm-hmm. dellu si ci saar yi tas ko def ko ay aaya bu ne nga multiplier ko mille fois mille dellu si ci aaya yi tas ko def ko ay baat baat bu nekk nga multiplier ko def ko mille fois mille mm-hmm. dellu si ci baat yi tas ko def ko ay xaraf xaraf bu nekk nga multiplier ko mille fois mille yal na ko yàlla def muy leer